salaamaaleykum wa rahmatullah sopp yi nga xamante ni yéen bàyyi xel seen télévision Tektal TV ñu dikk ak yéen ci naafila bés bi guddi fanweer gi ci weeru koor sopp nañu ko ci julli juróom-benni rakaa rakaa bu ci nekk mu jàng fatiha benn yoon jàng xul wallahu ahad fukk yoon ak benn des na ko ca tabaxal kër ci àjjana ba tey tamit sopp nañu ko ci julli ñeenti rakaa rakaa bu ci nekk mu jàng fatiha benn yoon jàng xul yaa ayyuhal kaafiruun jàng xul huwallaahu ahad lu ci nekk ñaar fukk yoon ak juróom dees na ko ca musal ci sawara te dees na ko jéggal moo ko jege ñaaleem te buy jéggi siraat dafay mel ni ak melax mbokk yi ku ci bëgg yeneen yi leeral nga dellu ci Xurratu Ayni bu Sëriñ Suhaybu bu mbakkee Mbakke page 151